jërëngën jëf mbokk Sénégal jërëngën jëf mbokk aduna amaan mbégte contenté bu baaxa baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média comme niñ ko défé chaque jour rek di lan topal lamb ak lepp lu am tém ci lamb la bok tay rek ma ngi fi nga xamanteni bi moy Gambie Gambia people tay suma ko waxé rek suma xel dem ci li nga xamanteni bi bi euh dëkku lu bu nga xamanteni bi mbeuri li fi ñew bari na sha allah mais na tay luñ fi indi mu war dox ci digënté face à face bu nga xamanteni bi aduna ñu koy xaar diko baye xel dox ci digënté tafatine la géant di Bawol borom tak ci su jugee bawol lépp topp ko macha allah kan la war a dajal ñu ne seen Sène sëtu Samba Xoyaan bi doomu Binta Badiane borom taay si nga dof du wér muy combat bu nga xam te ni combat jànq la ñoom ñaar bu su ñëw laal seen biir carrière muy combat bu nga xam te àddinaa ko soxla àddinaa ko bëggoon war yàlla def ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye ak Alburax production indil combat boobu waaye tamit yemu fa ba tey ci beneen jàkkaarloo ci biir combat yi dox ci diggante Eumeu Sène wala boog di ki nga xam ne mooy Modou Lo le roi des arènes doomu bi doomu Taïba bi doomu Fandène doomu 1 vingt 26 kan lay bëreel ñu ne Ama Baldé gars yi ne sëll la waaye sëll bi léegi yëkk la doomu Falaye Baldé bi rakk ci Gilles Baldé muy combat bu nga xam te bi combat roi yàlla àddinaa ko doon xaar bëggoon ko ñu fas yéene see def li nga xam ne mooy face to ñaari mbëri jàkkaarloo Tapha Tine jàkkaarloo Eumeu seen waaye Modou Lo jàkkaarloo Ama Baldé pour seen premier jàkkaarloo ci ci li nga xam te mooy ci contrat bi nga xam te ni signé waat nañ ko li xew ci diggante bi yëpp ginnaaw maa ngi Gambie ci féere bi. ñu ngi ko gis au calme ñu ngi lay ziar. Fatim Dia aca nuyu naa la ziar ñi nga àndal ñëpp ah. tey. Tafa tey nan nga gisee tey coopération bi ah li ñu ak waa Alburax Events. waaw dafa am solo àdduna na nila ay nit moom xam nga bu ñu bokkee benn métier nañuy waxtaan rek xam nga te gëm naa ne waxtaan nañu juboo nañu trouvé nañu terrain d'entente looloo ci amoon solo ko mhm. nice. tey ñu ténor yëpp lañu gis han ah. tay tafatine modulo Modou Lo Ama Baldé Eumeu Sène ñu nara a bokk gën jotay lool nak ñu ko moy mooy li ma lay wax rek promoteur yi ni ñu andé mbéri dañu wara am andé non bien vrai que lamb la gëw ba dafa wara saf mais après lamb yi ñun ñëpp ay ay frère lañu ñu xam ay am di jam lañuy nek mais xam nga mais bu arbitre soufflé mom xam nga suñu business lañuy def après xam nga bu jéxé jéna voilà lool dañoo def gars yi dañoo def euh, face à bi gars yi ne face à bi daa am war a wund ndax gis nañu Tapha war a bëre ki nga xamante nga ci ay est ce que loolu yaa ngi gisee ko ni ko gars yi gisee. waaw xam nga mën ngaa bëre adversaire moom mën nga nekk kii la yàlla dogal du doon ko mën na nekk keneen bon mbër yi bari nañ adversaire yi bari nañ xam nga voilà mu ngi noonu ko lool moom du ci dara mhm. dafa nga wara beure ki nga xamantene mom moy Eumeu Sen ñu gis ne war nga compétir li nga xamantene mom moy MMA mois d'octobre bi ni légui lolu planning bi nan la démé entraînement mom entraînement la rek da ngay dem footing yi wala nga def musculation wala ngay contact ak sa adversaire yi ak sa wa écrit mais amna na différent quoi MMA ak parce que li da ngay liggéey ci souf si boudé lamb la boudé MMA yaa ngi ci tapis et tout voilà lolu moy différent bi quoi Mm-hmm. mais ki ngay bëreel Eumeu Sène mu nekk koo xamante ni kon ni ko gars yi di waxee combat bi ñu bari dañ ciy xaar Tapha Tine mais ñaari combat yi du am benn empêchement bu mu non non non wax dëgg yàlla mooy li ma la wax rek ñun ay sportif lañu bu ñu sañoon comme ni footballeur yi déroulé chaque semaine ñu def deux matchs ñu koy defee noon mais xam nga toog benn un an nga bëri ci benn combat waaw day day xaw a war waar quoi. lan lañ mën a xaar tafaatin Tine ci combat am ak Eumeu Sène parce que ñu ngi ne tafaatin Tine bii ñu gis. mom moy tafatine bu ñor bi tafatine mbeur mi lool lan lañ mëna xaar. toujours tafatine rek waaw tafatine ba ngeen doon gis mom la visage be kanam geek lepp <laughs> mom la mais tam nit day magi yaangi ni xaw nga tuti don, doon wa voilà lool la quoi. Eumeu Sen day beure day xex tafatine ko gis xamni ma sha allah day xex mais est-ce que tay meun nga say supporter ban promesse nga len meuna jox sa combat ak Eumeu Sen est-ce que meun nañu xaar tafatine beure ak mom daan ko avec la manière pour mën a jëlaat place am vu que da nga duggoon Pikine. wa comme dab rek samay mom ma maak ñom xamanté nañu xam nañ lu ma capable ak lu ma capable donc xam nañu Tapha mën na wala mënul bëree parce que yàgg nañ ñi may top mbapat ba légui xam ba légui ñu bëri ma ngi leen di gis sama ginaaw ñoo xam nañu ma kon la res ay détails la quoi xam nga mbër nag xam nga da ngay compléter mën a bëree fi benen face bi moy xex parce que bëre door lañu wax il nga complet pour def ko donc boo ko ñemewul voilà booy boo nga dem rek teel a bàyyi. mën nañoo xaar Tafatine boo xamante ne tey combat ñëpp dañuy jaaxle ci cadre xeex ci cadre bëre est-ce que mën nañoo xaar Tafatine diriger combat bi ba ñëpp xam nañ Tafatine mi récupéré na place. noo xam nga làmb yow mën nga am sa bëgg-bëgg nga ñëw mu demee ne neen voilà lépp ci loxo suñu dañ koy bàyyi ci loxo suñu borom rek def li ñu war a def dinañu def lépp lu ñu waroon def. mais la dess yalla mom moy dogal quoi mhm. lay xew ëllëg yalla la quoi mhm. franchement mhm. mais ci sport lañ nek dinañ ko jox akam bu mot sec ak lu lamb yi laaj dinañ ko def inshallah ok oui tafa trois fois pikin loolu lan lay def non euh, moy limay wax rek pikin géeju way man sumay adversaire yi op fa lañ nek wax deug yalla bo beugé deug deug à part Bombardier saa bu ma amee combat automatiquement buñ ma proposer combat dama nan pikin la wala way voilà loolu la yalla dogal quoi franchement ñuy ay nit ñu baax aussi ah ma leen di wax mbëri quatre-vingt mille yeeg yëpp nañu gaaw mag ah. ñëw mën na paaje leen ah. voilà. fi may jeexalee ak yow mooy combat Ama Baldé Modou Lo combat boo xamante ni a boobu noonu nan nga gisee. waaw euh, di leen ñaanal rek xam nga comme yàlla def na oh. am nañu engagement ñoo xam ne engagé wu nañu pour lamb ji jee yag na 4 ans beure wuñu ko ñëpp leen yéene ñu beure jam ak salam te yakarna naa bientôt dinañ beure ku ne tàqale ko quoi ñu dem ci jam safu bool booli rek staff tabatini ma ngi tafaler tafaleer ma ngi lay nuyu de la ziar. ma la nuyu gaay ziar ak magal. ci lo nek Serigne Touba Xaadimu Rasuul. tey yaay gambi de. tey maa ngi waaw. ana suñu xar suñu grand tafatin. ana ko pour suñu contrat mak bom mako mako moo ko ko suñu borom meekoon dam seut guy. waaw. noonu la ko indee tay waaw comme ni ko da andé rek mais bi da ci raw quoi parce que ñu bëreel la. waaw moo toll noonu waaw. moo tax jël ndaanaan bu toll ni Eumeu Sène tey naka ngeen koy waaje ak fa la toll ci wàccaay bi. waaw mais xam nga rek mbër bu nekk ni ñu koy waaje mais am da ci yaram comme ni ko expliqué woon léegi rek parce que am ndaanaan la daf dina ci làmb Pikine yaakaar ko ak mbaaw xam nga moo tax ba pare comme il faut nga préparer bu baax a baax ba tax tamit loolu xam nañ ko bu baax ñu ngi koy waaj chaque jour saa bu ñu xëyee ñu ngi xool ci li koy daan ñu ngi ci dox tout le côté nag bàyyi ma benn côté.

arbitre bi lay day xeex ak moom waaw mais noonu sa baaj amsa amsa lañu déglu bu suba lu mu andi rek ah, xam nga moom mag la xam nga am mag la bu ñëwee xeex ak expérience ak doole xam nga am la bu ñëwee def yëfu mag jàpp ko daan ko bu foo def xale bi jàpp ko duma ko daan loolu la lu mu bëgg la daf yëfu mag jàpp xale bi duma ko daan non loolu mënul nekk loolu c'est impossible bu dee doole dafa ko doole moo ko daq xeex moo ko gën a nag xale moo gën nekk yaakaaru làmb. comme da nga ko déggee maanaam Eumeu Sène amul sens si làmb ji. moom. làmb moom comme ni la waxee rek làmb ngay làmb quoi mais li gën a war a war moom lépp luy sens jour bi incha allah ñun ñoo ko yor. ni ma leen déggee yéen bool bool dafa mel a a naagu xam suñu mbër rek ànd xam nga moom la ñuy xam quoi. loolu la demee. Ah. waaw rendez-vous ci kanam tuuti bu ñu jégee bag bi. incha allah rek bu ñu ubbi bag bi incha allah ci kanam la. Ah. mais di woo nag aussi waa bool yëpp. di woo boolu autorité bool yi. surtout message bi na mu nga jàll ba ko. autorité bool yëpp ñu ngi ñaan ñu jëpp na mbër bool yi dañoo am combat. Ah. Tapha Tine Mbaye Gouye Gui Kewel Bour Sine ak ñi mbër yi am combat bi te moom leen seen tur xam nga gars yi na leen jàppale parce que lam dafa mu metti barke Cheikhul Khadim Bawol bu ñu ne Bawol dafa war a am ay champion ay relève yu war a génn mbëri Bawol yi am combat yëpp la leen suñu doon defal ndam mel leen ndam ñu amul combat am yàlla suñu mel leen combat ñu am combat di bëggee waa Bawol yëpp waa Réfane nga ñu dégg man maa si kawam instant xaas faa kii ma jël combat parce que dama amul yomb jot ah. demee nag ok